أبدا بالود ولتحمني عن درر وكدي محوت عني الأسى والدرر مني تقبلت الحسان الدرر إلي أقبل جزاء الباقي ما جسى فرة سباقي إلي أقبل جزاء الباقي ما جزاء فرات سباقي كاسبي توحيد ومد للنبي عليه تسليم خفور المذنبي اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن نافع بنفع كل من تعلقا يا من أداني بالنبي وأدلقا أسألك الجنة بالمختار لما يلوس بيس استتاري li wajikal karimi habli kullama talabtu minka wa kulli alima laka xitaabi muxinan bi anni xillun wahibun faayisum bilmanni hadaytani daayatal hudaati يقت منية السادات لا ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكن توصل المطلوب يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك القود للمختار والآل مها سيابي خيرا يقيني تمام على الذي رافقني في سير صلاة باخ ليجود ميري اكتب لمن أخس وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين ما في اسمك الحسين وصبر asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokk yi seetaan ñoo ngi ci kër Serigne Bassirou Anta Niang xalifa borom daarul muxti muy juróomeelu xalifa ñuy ñaan mu yàgg fi lool te wér tey di talaata di ñaar fukki fan ak ñett ñëw fi Eh, ci waajtaayu eh, bis bi nga xam ne moom leen jëm muy bisu borom daaru xam ngeen ne dégg ngeen niñ ko waxee ci annonce yeeg ci appel yëpp eh, liñ ci joxe ndigal waaye nag loolu moo waral nag bis bi ñu ñëw fii nag tey ci Serigne Bassirou Anta Niang doon ko siyaare ak itam di sàkku ci moom ay ñaan ñu ànd ak Mame Diarra Seck ak Sané muy Waarwi TV directeur Serigne Bassirou si la kon xam naa noo ngi toog nag Serigne Abdou Khoudoss Mbacké bokk ci ñi nga xam ne ñooy jiir ci jumaa ji bokk ci imaam yi waaye ñu ngi ci ak Serigne Mahmadan Mbacke moom borom xam-xam waaye fekk nañ ci njaboot gi Serigne Moustapha mi nga xam ne moom ak ci njaboot gi naa dañuy jox rek euh, gannaaw bi ñu jógee nii ci Serigne Bassirou siyaare ko di ñaan mu yàgg bi lool te wér kon ñi ngi jàkkaarloog Serigne bi kon bu ko fee ñu jox Serigne Abdou Khoudous Mbacke Serigne Mahmadan mu ubbil Serigne Abdou Khoudous Mbacke. aouzu billahi mina samiil alim bismillahi rahmaani rahim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen sunu mbokk yi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp di ñu seetaan ci télévision bi di Waarwi TV ñu ñëwoon fii tey siyaare ci sëñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ci taxaw boobu nga xam ne taxaw ngeen ci waaye ci taxaw seetlu boobu nga xam ne def ngeen ko ba ñëw ci sëriñ bi di ci ñaanlu Euh, xam naa wax ji du gudd lu gàtt rek lay doon ndax buñ noppee rek dañ leen di jox sëriñ Abdul Xuddus mu am ay taxawaay ak ay taxaw seetlu yoo xam ne dana ko ci def rek ci jëmm ji nga xamante ne moom lañ nekk ci weeram muy seex Ibra Faty nga xam ne nit la koo xamante ne référence la boo xamante ne mënees na koo jox àdduna bi yëpp di ci ñaanale it waajur wi fi nekk bu baax a baax moom itam nga xam ne moom la fi suñu borom teg muy sëriñ Basiiru sunu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ba liggéey bi mu bëgg a liggéeyal Cheikh Ibra Faty yëpp mu àggale ko noonu it la ñuy ñaanale jëmm ji nga xamante ne moo fi jóge bu yàggul di sëriñ baas di ko ñaanal suñu borom xaare ko ci aljana yi gën a kawe ndax wax naa ko ci ay yu bari di wax ne moom ba léegi moom moo fi nekk. ndax moo jëmm ji fi nekkoon kenn ku ci nekk xam na seen diggante njaboot gi benn la kër gi benn la taxawaay bi benn la kon nag ñu ngi koy siyaar bu baax a baax moom itam di ko ñaanal suñu borom xaare ko aljana yi gën a kawe di ñaanal suñu mbokk mi nga xamante ne moo fi jógee bu yàggut tamit démb ki démb bi di suñu mag di suñu wayjur di suñu kilifa di suñu lépp di nit koo xamante ne sak la woon ci Daarul Muxti ñëpp daan ko bàyyi xel muy sëñ Mouhamadul Mokhtar moom Serigne Sidil Mokhtar moom sëñ Cheikh Awa Balla mi ñuy wax Serigne Cheikh Awa Balla moom suñu borom xaaree ko caal jam yi gën a kawe sëriñ Sohaybu bu di leen siyaare yéen ñëpp ak ñi bokk yi nga àndal yëpp eh, di leen wax ne leen taxawaay bi rafet na lii ñu defit lu am solo la ndax jëmm ji nga xamante ne moom lañ bëgg a wax eh, ku am solo la koo xamante ne bu ko ndaw yëpp xamee rek adduna bépp dañuy daal di noppalu muy maam Thierno Birahim bu ko jëmm yëpp xamee ndax adduna bépp noppalu ndax mën nañ cee joxe misaal mu gàtt rek avant ñuy jox sëriñ Abdou moom nit la woon koo xamante ne foo ko natt weesu na ko fa soo fa nattee nit nu muy àndeek ay bokkam da nga ciy gis mu mat sëkk nga natt ci nit nu muy àndee ak waay juram da nga ciy gis mu mat sëkk nga natt ci nit nu muy àndee ak ay kilifaam mu mat sëkk nga natt ci nit nu muy àndee akum réewam nga natt ko mu mat sëkk muy jëmmi Cheikh Ibrahima Fati ndax bu fekkee danga natt ànd ci ak say bokk mu mat sëkk sa mag di sa kilifa dénk la ay njaboot lu mat juróom-ñeenti at yoo xamante ne daanaka gisantewu leen te bi nga ñëwee amul menn mag moo xamante ne dañ leen a dajale ci kër ne leen nañ àtte wala nañ jubóole Cheikh Ibra Faty ak kaneen kooku da ngay xam ne mat mu juboo woon ak i bokkam la kon te bi sëriñ Touba di ñibbisi mësuñoo dégg menn ndaje moo xam ne dañ ko woote ne maam Thierno nañ ko jubóole ak mbokk sàngam moom ñoom ñëpp benn lañ woon soo ko nattee digganteem ak ay waajuram xale bu ndaw ñu yëkkati la jox la sa mag mu jàngal la yar la tarbiya la li nekk ci yow lépp mu def ko ba Serigne Touba mi nga xamante ne mooy magam tañ joxoon ko ko mu bindal boppam wax ne Ibrahima allazi lam yu xaalif ni laa fi siqarihi wala fi kibarihi mësuma wuute moom ci moom ci moom ci ndawam ak ci magam mësuñoo wuute benn yoon kon kooku kenn ku ci nekk xam na ne déggaloon na ay magam déggal gi amal njariñ am réew mi kenn wéranteetu ko ndax li yan boobu di metti metti metti metti mësta sàkku ndimbal mësta soxlaal am réewam dara moom ci boppam sax moo wëlbatiku woon di dimbali am réewam ndax moo daan liggéey bu liggéeyee ba noppi réew mi tumuraanke xiif mu yëkkatiwaat ci alalam jox leen kon kooku kenn ku ci nekk xam ne ku amal njariñ am réewam la woon waaye ku amal njariñit ay ay ay bokkam yëpp la woon ndax mbokk mu ci nekk niñ koy waxee ci kër Serigne Touba kenn ku ci nekk man nga ne Cheikh Ibra Fati lim ma defal waaye mënoo ne li ma defal Cheikh Ibra Fati kon loolu kenn ku ci nekk xam na ne ku amoon ay bokkam la woon kon nag ku mel noonu su agsee ci bis bu mel nii nga xam ne dañ ko ci fàttaliku Serigne bi wax ne nañ ko defee ni nga xamante ne mooy ndigal ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xam ne noonu la ko waxee te Serigne Mouhamadoul Mountakha mooy digle moo nekk ci kanam yoon wi moom la fi Serigne Touba teg ku nekk rek ci ronam nga nekk. kon moom itam mu joxe ndigal loolu ndigal loolu lu am solo la loo xamante ne ñi ngi ñaan ñëpp rek ñu dimbale ci sëriñ bi te xam ne ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha la ndax moom moom moom yoon wi ni ko Cheikh Abdoul Khoudous daan waxee da daan wax ne Daaru Muxti gii kat na ngeen xam ne ab béréb la ci Touba rek ka yilif Touba moo ko yilif lu mu wax loolu la ñuy def lu mu moom la ñuy bàyyi kon nag Cheikh Ibra Faty moom bu ñu àggee ci bisam waris na koo jëmmal ci média bi bu nit ñi toogee seen i kër war nañoo wut lu leen di wettali seen i kër loo xam ne kenn ku ci nekk référence boobu ñu tegoon ci sa kanam da nga ko bàyyi xel te boo ko bàyyee xel bu ëllëgee da ko jëfandikoo ba xam ni ngay toogee ba xam ni ngay dalloo ndax maam na ku ko jël teg ko ci sa kanam boo toogee ci sa kër dana am lu la wéttali lu la doy sëkk loo xamante ne du jar ngay nekk di duggaat ci yeneen ci mat gum matoon ak kilifteef gum amoon kon nag ñi ngi ñaan ñëpp ñu def ci loolu amuñu luñ ci guddal dañuy bàyyee kàddu gi rek ak Cheikh Abdoul Khoudous su ko defee mu am ci ay leeral yu mu ci def ñu door a tàggoo di leen xamal ne nag sëriñ bi sant na lool Ah, ci lii ngeen def muy gisin wi nga xamante ne giseen ngeen ko ak pas-pas bi ngeen xam ameen ngeen ko nee mi ngi leen di ñaanal ci liggéey bi yàlla na ko suñu borom barkeel yàlla na ci suñu borom def ay teraanga na ci suñu borom def xéewal ba mu nekk ci télévision yi gën a mag ci àdduna sëriñ bi ñaan na ko yàlla na ko borom daaru def yàlla na ko sëñ Tuubaa def wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mahamadan Mbacke moom sëriñ Bassirou Anta Niang ñu ngi kon bu koy bokk yi nga xam ne yéen ngi jàkkaarloo fii ñooñu ci kër Serigne ba Anta Niang ci Daaru Muti mu juróomi nu xalifa ñu ñaan mu yàgg fa loolu tur kon ñu dox Serigne Abdou Khoudoss Mbacke mi nga xam ne ñu ngi ko duppee Serigne Abdou Khoudoss Mbacke moom borom daaru borom xam-xam ba moo ci fa tabarakalaaw ñu ñaan mu yàgg fa loolu tur kon ñu bokk déglu ak seetaan Serigne Abdou Khoudoss Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang bismillahi rahmani rahim wa afdalu salaati wa aska taslimi ala sayidina wa nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa asna qadimihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen ndokkeel di jiital ci siyaar bi noonu ko sëriñ Mahmoudan waxe rek alxalifatul am li tariqa al muridiya sëriñ mohamadul muntaqa ayadahu wa nasarahu wa aafaahu wa ataala baqaahu di ko ñaanal yàlla dolli ko tawfiq bu baax ak jàmm ak kàttan ci liggéeyal lislaam liggéeyal yoonu murit liggéeyal julli di nuyu di ndokkeel it sunu waajur sunu sëriñ cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Ibrahim mi nga xam ne moom la fi yàlla teg ci njabootuk kanam njabootuk cheikh Ibrahim gépp di jaarale ci moom nuyo bi nag di ko teg ci loxol mboolem boppi kër yi borom daarul moxti yëpp ak mboolem boppi kër yi yoonu murit yëpp wépp wépp ak mboolem taalibi yëpp ak jullit ñépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di ñu bàyyi xel wala ñu ñuy diglu ñu ngi leen di jottali nuyoo boobu di ñaan yàlla mu defal ko tawfiq ci yan bii ko yàlla yan ba mu woyof toy mu téeñal ko ba mu àggale ko fa magam ñu baax yooyee sëriñ Mahmoudan wax jiitu woon ku mel ne Cheikh Abbas mi nga xam ne moo ci mujj nekkoon ko ràññeeku ci ak maandu ak ak ak ak ak dëggu Euh, fulla ak mbaax yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak i leer ci fa mu tëdd ca sax te taas ñu ci barkeem di leen xamal ne nag sëriñ Bachiru ibnu Cheikh Ibrahim te ñëpp gën koo xam ci sëriñ Bachiru Anta ci turam lañuy sànni kàddu yi mu jëm rekk ci bis bu màgg bis bu tàdd bi ñu dëgmal muy màggalug daarul moxti mu nekk munaasaba boo xam ne occasion la boo xamante ne kenn mënu ko fàtte ci àdduna ndax la ca xewoon ndax bis bu ne la koy amal solo mooy la ca xew ci la ñuy rawaatee ci lañuy ñuy ëppaate solo ndax gis ngeen ci lislaam ni mu amee la solo lu mel ni ki lay laylatul xadr la ko waral mooy la ca amoon mooy ci la yàlla wàcc téere bi gën a màgg téere bi gën a sell téere bi gën a matale lépp muy alquranul karim gis ngeen ni yàlla fonke wala bokk ni mu digale jullit ñi ñu fogg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal xam leen mooy ki nga xameen moom mooy mooy ki ma gënal ci mbindeef yépp tax ñu fonk bisu gàmm bis bi mu gane àdduna ndax yàlla nee na loola moo laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahim muy yërmande moom yonente bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yërmande joo xamante ne dafa ñëw ci àdduna bi ngir xettali jullit ñi xettali mboolem àdduna yi àdduna bi yépp kon bis ba mu gane àdduna ci bis yi gën a màgg ci àdduna la bokk gis ngeen bisu arafa ni mu ni mu amee solo niñ ko amee solo ci lislaam te la ko waral mooy aj gi lépp la ci ëpp solo mooy bis boobee ndax yonent bi nee na ci la yàlla mottilee wàcc alquranul karim al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina ba mu ko waxee am na benn juif boo xamante ne daaju wax ci kanam mbooloo mi ne lii de bu fekkonte ne ci ñun la wàcc ñun juif yi kon dañ koy def suuru férié fête boo xamante ne dañ koy màggal ba ba àddunay tukki Seydina Omar tontu ko ne ko xam naa li ngay wax de waaye bis bii ñun sun bisu feet la ba ba àddunay tukki dañ koy màggal di ko fàttaliku ndax ci la yàlla mottali lislaam ci la yàlla mottali alxuraan kon yàgga fàttaliku bis boo xamante ne xew-xew bu rëy da caa am loolu lu sax la ci lislaam lislaam bañu ko da ko saxal sax daf koo digle sax kon euh, yéen euh, bu ñu ñëwee di fàttaliku bisu màggalu Daaru te ñu ne lu ca xewoon ñu ne mooy bis bi nga xamante ne yoonu murit mën nañ ne ci la ndam bi gën a kawe ndam bi gën a mag ndax sëriñ bee ko waxal boppam moo wax ne ijaal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana samak dellu si na nga ko def yow yàlla muy bis bi nga xamante ne mooy nekk bonheur wala mooy nekk euh, texek mboolem ñi aju ci man ñépp mboolem lu bokk ci nit ku ñuul ak nit ku weex ak képp koo xamante ne ci lislaam nga bokk bis boobu sag texe lay doon kon bis boobu moom lañuy fàttaliku ndax ci la sëriñ bi deme woon ci tukkeem boobee nga xamante ne wax na ne euh, tukki la boo xamante ne sëriñ bi dafa wax ne euh, lii kun bi kun sarmadan wajal masiriya sa jawfal wara lil wara mislal maharini sëriñ bi dafa ñaan yàlla ne ko defal ma kun barkib kun ba ba àddunay tukki te sama tukki bii muy sama dem gii nanga ko def mu nekk rëbb wi nga xamante ne mooy rëbb wi gën a duun wi gën a mag jawfal fara mooy rëbb wi gën a duun boo doon rëbb ba ca gën a rëy gën caa duun boo ko jamee rek am nga lépp sëriñ bi nag nee na lam doon wut lépp ci biir tukkeem bii ci la ko amee kon ginnaaw ci biir tukkeem bii la ko amee te bi muy dellu si la indiwaale mm, bagage yooyee indaa indiwaale euh, may yooyee yu rëy yooyee nga xam ku dul yàlla xamu ko ku yàlla xamu ko ndax sëriñ bi nee na bi muy dem kamaalul imaan ak kamaalul islaam ak kamaalul ihsaan nee na matale na ko sëkk te loolu nit yàlla yi moom ñoom ñëpp daanaka loolu lañ doon wut te sëriñ bi nee na bi mu laataan tukki am na ko sëriñ Basiiru ne ko kon loo loo doon wuti ci tukki bi sëriñ Basiiru doomam doomu Cheikhul Xadim sëriñ bi ne ko tukki bi la ma ci doon wuti mooy maarifatullah ak alwusul maarifatullah kon lu lu rëy rëy la mooy xam yàlla gu wér ak àgg ci yàlla bu wér a wér a loolu na ne ci biir juróom-ñaari at yooyu moom sëriñ bi ci la ko am diirub juróom-ñaari at yooyu it kon ana kan moo ko fi nekkaloon anakan kan moo ko wuutu woon ci njaboot gi anakan moo yore woon li nga xamante ne tàmbali woon na ko ba mu tàmbalee sax ñebbet loo xamante ne da doon door juddu mu dem bàyyi ko fi mu sàmm ko ba bi mu ñëwee njaboot loole noonu ko max mu doon waxee mu ñëw fekk ko mu meññ. ba ñor joxe ay résultat joxe lu baree baree bari loo xamante ne mën nañ ni moo moo moo mooy mooy mooy kennu yoon wi hmm. kenn yu yoon wi fondation yoon wi te ku ne xam na ne tabax bu tabax boo gis fondation ba moo ko téye ana moo téye woon fondation boobu ba sëriñ bi ñëw kooka mooy ki ñuy bëgg a waxtaane te mooy maam Thierno Ibra Faty moom moo nekk diirub juróom-ñaari at boobu yooyu nekk ku ku kawe yit nekk ku mën a muñ nekk ku jàmbaare nekk ku dëdd woon àdduna waaye nekk koo xamante ne dafa boole woon ñaar yu jafe te mooy shariatu ak xaqiqatu yi nga xamante ne moom la sëriñ bi gënoon a taamu ci ak ab taalibeem mu nekk ca diirub juróom-ñaari at yooyee formé ca nag ñeneen ñoo xamante ne ay kenn lañ ñu mel ni moom nga xam ne ay Cerno ñu mel na moom ñu baree bari formé na ko ci diirub juróom-ñaari at yooyu euh, bi ko sëriñ bi bàyyee euh, njaboot gi ak yoon wi booba réew mi fekk na mu nekk ci ay jafe-jafe yu bari ndax booba ñoom liñ bëggoon rek mooy effacer ndax wax nañ ko ci seeni archive ne dañoo bind ne dañoo bëgg a exiler Ahmadou cheikhul xadim radwanullahi alayhi ngir ay enseignement ci biir réew mi ak ci biir famille Sénégal mu nekk loo xam dañ koy fàtte loola nag moom la maam Thierno jaayante moom la xeex ci diirub juróom-ñaari at yooyu ba saxal ko nag ci gannaaw sëriñ bi sëriñ bi it yanu baatin ba liggéeyal suñu borom ba ak am daraja yooyee mu am nga xamante ni ku yàlla xamu ko ci biir tukkeem boobu ñu boole nag ñaari bénéfice yooyu yëpp daje ci bis bii muy bisu màggalu Daaru Muxti muy anniversaire màggalu Daaru Muxti Daarul Muxti kon liñ ci fàttaliku rek war ko fàttali it euh, ñi nga xam ne ñooy yi mooy nit a ngi nii koo xamante ne ku am kóllëre la te kóllëre mooy li ëpp solo ci lislaam ndax yàlla ba muy tagg jullit ña tëggiwu leen julli yu bari tëggiwu leen eh, jàng alxuraan ak naafila yu bari waaye dafa wax ne laysal birru di lim jikko yam gën a bëgg moom yàlla laysal birru walakinil birru man amana billah mooy dëgg gëm gëm yàlla gu wér di taxawal julli di di joxe sa alal ci yoonu yàlla waaye nag wal muufuuna bi ahdihim idaa ahadu maanaam ñi nga xam ne dañuy matale kóllëre ak di ko sàmm matale kóllëre ak di ko sàmm nag mooy liñ la dénk nga sàmm ko ba ka la ko dénkoon nga delloowaat ko ko ca na mu ko bëggee woon loolu la maam Thierno def ci diirub tukkeem boobu diirub tukkeem boobu maam Thierno Ibrahima Faty taxawal na fi ay ay ay daaray alxuraan te xam ngeen ne xam-xam ak jàngale moom moo mën a yenu ak defar nit ndax sëriñ bi daa dafa wax ca Mbàkke Kajoor ne jàng kese mënta defar nit waaye yitte ju kawe moom mooy defar nit moo tax mu ne rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars jël leen nag himma moomu kon laa bëgg a leeral mooy mu yitte ju kawe jooju mooy lan ak nu ca maam Thierno taxawe yitte ju kawe dama bëgg wax ne moom mooy nit ki bakkanam di di di xool foo xamante ne dara du ko yitteel lu may yàlla lépp lu nar a dox diggam ak yàlla yit day fexe ba faagaagal loola ba jaar ci loola ba jàll ci suñ borom loolu mooy yitte ju kawe mooy nga jublu wóor a wóor ci sa xol ak ci sa mboolem force yépp force divine ak force euh, matériel maanaam say say cër ak sa xol ak sa lépp ak say jëf ak sab yëngatu ak sab dal lépp mu nekk yàlla loola mooy yitte ju kawe loola la sëriñ bi yaroon maam Cerno ca tàmbali ba ba mu ko laataan dénk njaboot gi di dem ci géej gi yitte ju kawe jooja nag ca la maam Cerno nekkoon dafa wax ne tariquhum ashra fukk la jaat lawazimuha la budda minha li arbaabil iradaati mu boole ca moom sëriñ ba ci fukki mbir yooyee nga xam moo moo moo téye kenu yoon wi mooy doxal yoon wi mu yite ju kawe mu wax ne min hal mataaya bi himmatin aliyaat yite ju kawe jooju nag ci la maam Thierno doon dox guddi ak bëccëg ci diirub li fi sëriñ bi bàyyi ko dem ci tukkem bu yàgg boobee tukkem bu rëy boobee yite ju kawe nag dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ndax nit dana doon koo xam yitteem day kawe kawe ba ni ko imaam Malik waxe dana toll ne asamaan waaye itam dana suufe ba nga xamante ne fa gën jaakawee suufe fa lay yem loola li ma ciy tegtaloo mooy bu dee ci wàllu yitte ju kawe nit ki bu dee sàkku xam-xam euh, war na caa wone yitte ju kawe maam Thierno ci biir xam-xam boobu da caa wane yitte ju kawe ndax bi ko sëriñ bi jàngal moom maam Thierno euh, dafa amoon yitte lool lool ci sàkku googee mboolem fu nit yàlla yi nekk ànd nañ fa mook sëriñ ba di fa wut xam-xamu maxarifa muy xam yàlla mu mu mu doon xam-xam boobee nag xam ko bu wóor wóor defaat ko ci ñeneen ñu baree bari diirub li sëñ bi génn moom maam Thierno mën na maa wax ne diir boobu defar na fi ñu baree bari taxawal na fi lu baree bari muñ na fi lu baree baree bari ndax Euh, ay nattu dal na ko fi yu méttee metti ci gannaaw sëriñ bi ndax suñ boroom dañoo wax ne euh, ki mu gën a bëgg ñoom lay gën a nattu waaw dañoo wax ne ki gën a ki yàlla gën a bëgg moom lay gën a nattu ba nga xamante ne benn mu day yokk ay darajaam wala muy wàññi ay ay ay ñaawteefam wala mu wala ay tooñaangeem maam na nag ci loolu la nekkoon nattu yooye dal ko muy muñ nga xamante ne wax nañ ne dem na ba ak njabootu boppam sax am na ci ñu baree bari ñoo xamante ne nattu yooyee ca lañ génne àdduna ca lañ ca lañ lotte mu ñaan yàlla nag ne lii nga xamante ne sëriñ bi bàyyee na ko su fekkee nar na ko nar naa ñëw di ko ci lay dara yàlla na ko sunu boroom teg nattu boobee mook ak njabootam ak ak soxna maam Faat Isa moo fi newoon kon loolu yitte ju kawe la mu jóge fa moom maam Thierno nekk nag ab liggéeykat am yitte ju kawe ci wàllug liggéey ndax bi ko sëriñ bi bàyyi boo bàyyiwu ko woon lenn loo ci ci zahir loo xamante ne mënoon na caa am mm, li ñuy wax autosuffisance lu mën a yore boppam yor ci njaboot gi ak ak daara yi ak li ko sëriñ bi bàyyee waaye yitteem ju kawe tax na wax nañ ne am na at moo xamante ne lam doon la njabootuk sëriñ bi sax da ko doon leb waaye wax nañ ne wër na fu ne leb fa amut lu mu dunde waaye bi nga xamante ne nawet baa ngi bëgg a ñëw bam bam leb ba am lu mu mën a def aw jiwu ak lu mu mën a bay dafa ne bu fekkente ne baye koy maye ak ak ak yitte rek dutuma lebati kenn te loola liñ ci tegtaloo mooy moom nekkoon na ci ñi daqoon a bay ci réew mi ndax dem na ba nga xamante ne takkal nañ ko medaay buy wane ne Afrique ci ñi fi dàq bay la bokk tubaab yi dem nañ ba jaaxle ci jamono yi ger euh, deuxième guerre mondiale bi ab dund amut fenn ci réew mi menn moom moo fi amut dund dund boobee ñëw nañ di ko leb si luñ dundalee ñi nga xam ñoo nekk ci prison yi ak soldaar yi loolu sëriñ Abdul Xuddus Mbàkke yàlla na ko yàlla dolli leer ak ngërëm nettali na ko wane ne tubaab yi ñoo ñëw bind ko leetar ñu ne ko ñaari leetar yi yow dong yaa ko mës am yow la ko yàlla teraanga la joo xam la ko yàlla defal benn leetar bi mooy leetar bu jóge ci euh, commandant walla leetar boo xam dafa jóge ci gouverneur général di leb ab dund mu lebal leen ab dund ba pare xamal leen ne leen dund bi lebaluma leen ko yàlla laa ko lebal te loolu buñ ko doon buñ ko doon xool fii ne di ko xayma ci suñ jamono ji ay milliards yu bëree bari la waaye moom da leen ko da leen ko jox ngir dimbale leen ko ñu ne ko beneen leetar bi it yaa ko am muy honneur boo xam ne keneen amu ko muy leetar bu jógee ci sëriñ Touba ci njaareem xamal ne bu ngeen demee nee leen cerno liñ fi jëfandikoo ci kër gi da dafa dem bay bëgg a jeex na ma indil na ma ko indi na ma indil dugub loolu ñaari leetar yooyu moom rek moo ko moo ko mës a am kon loolu honneur la loolu lu lu jafe la te loolu liggéey moo ko ko may ite ju kawe ci liggéey moo ko ko may mu nekkoon koo xamante ne euh, mës a toog benn yoon mës a toog benn yoon diirub li fi sëriñ bi nekk li fi sëriñ bi nekku nekk ci biir tukki bi mi ngi réalisé ci la taxawal këram yu yooyu ngeen di dégg daarul mën naan te fu mu mës a dem it dana fa defal sëriñ bi kër defar fa ab jàngu defar fa naanu ndox mu ñuy naan wut fa ay ay barab yoo xam ne ay yoon la ak barab yoo xam ne yu sell la ngir sëriñ bi mettre ko en valeur suuf si ci dëkk dëkk yooyu mu sànc yëpp gannaaw sëriñ bi ci ndigalal sëriñ bi mu nekkoon koo xamante ne it exemple la ci yitte ju kawe ci jëfe ndigal ndax daawut jëfe lan loo xamante ne buy ci ndigalal sëriñ bi ndax wax nañ ne ba ci biir tukki bi sax sëriñ bi dafa bind bàyyi fi lépp lu war a xew gannaawam sëriñ bi bind na ko bàyyi fi nga xam bu dara xewee day dem xool rek la ci sëriñ bi bindoon mu wéyal loola wax na ko waxtu wa ak la muy la cay xew ak la muy demee yëpp nga xam nekkutoon kuy làmbut waaye léppam daf koo tegoon ci kaw maanaam mm, rëdd wala boog plan boo xamante ne euh, sëriñ bi moo ko ca jaarale woon mu mu jaar ca diiru li fi sëriñ bi fa gën euh, nekkul lépp mu nekk koo xamante ne euh, misaal lay ci yitte ju kawe ci fonk ak jaamu yàlla ndax li ma ci tegtaloo rek mooy sëriñ Basiiru moom Seexul Xadim bind na ci Minanul Baaxil Xadim ne moom borom daarul moxti nekkoon na koo xamante ne diirub li fi sëriñ bi jóge ci biir tukki boobu moo daan jiite jàkka ja moo daan jiite daara ji fa ñuy jànge xam-xam du manqué wenn waxtu te euh, moo daan jiite euh, maanaam mbirum liggéey bi mu nekkoon koo xamante ne diir boobu nee na réalisé na fi moog ñam ko àndaloon lim na leen ñu baree bari la ci ay kàngam ñoo xamante ne ñu ngi woon ci gannaawam di wéye ndigalam réaliser nañ fi yoon wi defaraat lu baree bari taxawal lu baree bari diirub li fi sëriñ bi nekk li fi sëriñ bi nekku yite ju kawe je ci jaamu yàlla ga ciy tegtaloo mooy moom nekkoon na koo xamante ne mës nangu ku julli ci jàkk ji te jàppoo te booba ndox jafe na fi jafe na lool lool nit daana fi mar ba aw mar di ko bëgg a rey waaye teewut du nangu ñu ñu julli te dañuy jàpp door a dem ci jàkk ja mooy jiite jàkk ja diirub li sëriñ bi nekkul juróom-ñaari at yëpp mës am naayib kon ak jaamu yàllam lu lu lu lu lu nekkoon na it koo xam ne dafa amoon wërdu alxuraanul karim alxuraan wax nañ ne da ko daan jàng ndax sëriñ Abdul Xudus nettali na ñaar fukki isib la daan jàng bis bu nekk. sulusul quran ñetti fan yu nekk mu wàcc alxuraan noonu noonu noonu la doon def loola lañ ci taktaloo rek mooy am na bis sëriñ bi woolu ko ci njaareem moom maam Thierno sëriñ Abdul Xudus nee na bokkoon na ci yoon wa ba mu ne ñëwee sëriñ bi ne man de dama rusa nekk ci biir Thierno nekk ci bitti mu nekk ak sëriñ bi ci biir kër gi sëriñ bi te toog ba mu guddi lool mu ñëw mel na ku ko ku koy ku koy seetlu ba xam ci lu mu nekk bi mu ñëwee ci néeg bi maam Cerno nekk fekk na ko muy jàng alxuraan di jàng alxuraan ci guddi gi ba ba daaneel ñaan daal di taal daal ne alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi door ko door ko door ko door ko wane ne ko yëglu ne ko waaw góore Cerno yow de am nga bu yóbbal te nangu ngaa dem ndax lu bari ci fere yi de dama leen jox jox ab yóbbal ñu di ko yóbbuloo <laughs> ñu di ko jëfandikoo ba pare demuñu yow nag dama laa jox yóbbal nga nangoo dem teg ci kon loolu euh, ba tey ci yitte ju kawe la waaw li ko sëriñ bi jox moom da ko da ko exploité bu wóora a wóor jëfandikoo ko bu wóor a wóor waaye foye bu ko loolu it mën nañ ko cee royee bu baax ci bisam bu jublu see ñu ñu gën a xam ne lii sëriñ bi def ay yóbbal la yu ñu war a jëfandikoo mu nekkoon koo xamante ni ak njàmbaaram ñëpp xam nañ ko njàmbaar gi mooy moom tubaab yi maanaam xupp nañ ko ba tàyyi gannaaw sëriñ bi ngir bëgg mu bàyyi lii lii fi sëriñ bi bàyyi mu bàyyi ko ñëw nañ ba ca kër ga ñu xamal ko ne ko fii la sëriñ bi dëkkal danga fi tox mu ne leen waaw tox gi de ànd naa ci ndax sëriñ bi ne woon na ma foo leen mën a dëkkal nga dëkkal leen waaye da ngeen may may ab ab ab diir ma waaj ba mën a tox ndax ne woon na ma loolu waaye tubaab yi nag bëgg ko forcer mu ne leen déedéet loolu bu ngeen bu ngeen bu ngeen ma bëggee toxaloo forcément da ngeen di jaar ci sama kaw door àgg ci njabootu sëriñ bi kon kooku ku amoon ak njàmbaar la ak fit ndax arme bi bi tubaab yi yoroon di xuppe ak di tiitloo ak di ragalloo moom mës koo gis mësuñu ko mën a tiitloo ndax sëñ Moussa Ka wax na ko sax du tiit du rët du jaaxle waaw moom nit la ko xam ne fitam réyoon na àgg na ci ba euh, colonialiste yi ak tubaab yi mësuñu ko mën a tiitloo njàmbaar ga it la ma ci tegtaloo bokk na ca mooy ku toll ne gouverneur général sëriñ bi yónni ko ne ko yóbbul ma ab leetar leetar ba ba mu demee moom borom daaru garde yi ak ñoo xam ne ñooy nekk ci kii bi eh, intermédiaire bi bëgg mu jox leen leetar mu ne leen leetar bi ki ma ko yónni def na ma sa loxo ak loxo gouverneur général du ma ko jox kenn te àgguma bañ xëccoo fa xëccoo fa dégg ngeen ku baax di sëtu sëriñ tubaa di boroom xam-xam nettali ko mooy Serigne Moustapha Salih yàlla yàlla doole xam-xamam ak jàmmam muy nettali xissa boobu ba xëccoo ba mettee nag boroom ndar seen leen ne leen kee day Serigne Touba ko yónni ndax yéreem yeex mu sol bu ñimee nekk di di di euh, garde corps yi ak ak ak arme bi kooko ku ne xam na ni ci Sëriñ Tuubaa la jóge loolu ak njàmbaaram da koy tegtal bu wër wër ak matam mësta tiit kon loolu it mënees na ko ci roy bu baax a baax xam naa ginnaaw da ngeen a ñëw te mel ne waxtaan wi xawoon nañ koo kii tuuti dañuy yamandi foofu yóbbuloo lool rek ci seen bi ah, ñu xam ne it ñi ngi waajal màggal gi waaye niñ koy waajalee nañ ko teg ci kaw ndigal ndax sëriñ bi am na lum digle ñun ñëpp dégg nañ ko njaboot gi yëpp dégg nañ ko ah, dañoo toll ci contexte wala jamono joo xamante ne jamonoy kiris la jamonoy euh, mbas la ah, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax la ca lislaam digle ñu sàmmoonteeg moom la ca sëriñ bi digle it ñu sàmmoonteeg moom loola kon mooy waxtaan wi ñu ngi ñaan nag seen bi yàlla na suñu boroom yëkkati ko ba mel ni jant bi waaw ndax ginnaaw da ngeen di jàllale te li ngeen di jàllale lépp ci njàngaleem sëriñ bi la yàlla na leen yàlla yëkkati ba mel na jant bi ba ñëpp gis leen ñëpp dégg leen ci barkeb maam Thierno ci barkeb màggal gi ñu dégg ma la te yàlla dafa leen eh, jàmm dafa leen tawfiq ci seenub liggéey ñu ngi leen baal àq bu baax soxna maam jaara ñu ngi lay dalal bu baax ci kër gi xam ne fii seen kër la télé bi it sunu télé la kon lépp lu ngeen fi soxla rek bu ngeen ñëwee ñu ànd koog yéen diirub fan yi ñu dëgmal si incha allah am na yeneen waxtaan sax yu ñuy def fële ci kër borom daaru gi bu ngeen fa mënee teew ngeen teew tey ci guddi gi incha allah ñu ngi leen baal àq son yi xam naa kon dama lay jox kàddu gi rek wala soxna maam jaar euh, lii mooy li nga xam ne moom loolu jël fii ci kër Serigne Bassirou Anta Niang xalifa borom daaru Serigne Bassirou mii nag euh, téere boobu ngeen euh, nga xam ne kuy Eh, seet eh, taarix borom daaru akuk njàmbaaram il faut nga gëstu ko sëñ Bassirou Anta Niang mi mooy ki nga xam ne moo taalif téere boobu di borom xam-xam boo xam ne moom it wax dëgg yàlla eh, jiite na ji ay ati at jumaa ji ay ati at gannaaw bi nga xam ne sëñ am sa dem na ba tële moom la ko joxaat mu koy jiite moom tamit mu demee ba léegi mu jox ko sëñ Abdou samat kon ñuy ñaan rek mu yàgg fi loolu te wér kooku mooy sëñ Bassirou Anta Niang xalifa borom daaru nekk juróomeelu xalifa ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te wér xanaa kon soxna maam jaara rek gis kii noonu wax def waxtaan wi sëriñ a Khoudous Mbacke bokk ci ñi jiite jumaa ji waaye sëriñ Mahamadan eh, feggoog moom sëñ Abo ak sëriñ Moustapha mi mag ci njaboot gi ak ñoom sëñ Xaadim ak ñëpp ñu ngi fi kon ñu ngi sant bu baax kon